une séquence je ne vous ai maanaam xarit bu am valeur. daa am solo bàllay sa. ndax yow ku la xool xam ne am nga valeur ndax suñu fàllooy sa bàyyi doy na valeur. Mm-hmm. waaye li tax am valeur am solo mooy. pomme de ak ñam bi ñoo bokk nekkandoo ci suuf si ñoo bokk fañ leen bayandoo waaye dañoo bokkut ay xarit. ñam jën la xaritoon pomme nag moo xaritoo ak ndawal. léegi da ngay xool pomme de terre lay jar bu effectivement ñëwee xaritam yóbbu ko 800. ñàmbi mi di ko xar juróom xar fukk ndax daa xaritoo ak koom gën a loolu ngi lay ñaanal jàmm ndax jàmm daa am solo muus mi daa muus mi daa toog fii di ci pëjum néeg bi daanu suuf muus di ko xool ba mu yàgg ne ko sama mbokk mbaa dara dal la mu ko yow moom lu mën a xew na ma bàyyi yàlla rek ndax boo ci duggee ma génn ma génnaat bi kon bàllay si yàlla fi yàlla dundal ba découragé wu